situation à Kélador Kélador avec situation Kélador 4 combats 4 victoires situation 7 combats 5 victoires 2 défaites Kélador Boy le la situation Soubane la fi gauche situation de droite mi ngi situation ngemboo ngemb lu ñuul li Kër Moussa Clédor bëgg sa waajur Clédor a noonu Lac Rose bëgg naa la cinquante la jóge Boy Baldé waaye Farouz bëgg naa la Clédor noonu xeex na ñoom ñaar Karara Junior mu ànd ak Clédor Aydara Karara ànd ak Balla anda ak Kélédor Kélédor mi ngi nonu diko ko digante diggante Kélédor ak situation diggante Kélédor ak situation di nuyu wa Cité Ñax di len bëgge di len siyaar waye di nuyu wa Kër musa Cheikh mbay Cheikh mbay nuyu na la di la siyaar asan Production ma ngi lay nuyu du benn diggante Clédor ak situation diggante Clédor ak situation eh Clédor door na de boobu ku tar na de diggante Clédor ak situation diggante Clédor ak situation ña jëm ci wétu saaku ya dikande jël nako wéñ nako na door Clédor daan na ko jël bu reyna way waaye door daan nako 5e combat 5e victoire mi ngi nonu mom moom door ndaanaan la da mëna a bëre waaw xale la waaw waaw mi ngi nonu é kaa dem saliwu saliwu kaa jëlee ma Clédor door saliwu ñu jël door kaay yesi way Clédor door ngi nonu Clédor door ngi nonu ma ngay daanu yesi waaw waaw cinq combats cinq victoire ndaanaan la daa bokk ci làmb moom Clédor mi ngi noonu Clédor a ngi noonu Clédor a la xale la moom Clédor ee Clédor a ngi noonu eh Kelle Dore ngi noonu xale la ba ah mais doole fay ngi noonu mi ngi noonu ña ngay tekki gàllaaj ya ña ngay tekki sengoor ya ña koy sottil ndox ca bopp ba eh kele te kaw sara si te ñax kele doore ngi noonu am na lu laaj de eh Kele Doore ngi noonu Kele Doore ngi noonu Kele Doore ngi noonu kaay kaay ñu dem jël ko leen dem kaay leen dem Kele Doore ngi noonu kaay kaay Kele Doore ngi noonu félicitations. dinañ ko góor. Clédor kaay. félicitations. waaw waaw. Ndiaye baax na baax na léegi. Ndiaye baax na waaw taxaw taxaw ma rek. sant yàlla bu baax a baax. sant yàlla rek yàlla mën lépp. Clédor. Clédor dañoo gis nga adversaire boo xam mën nañ ni mo la jitu ci lamb def sept combat gaay deug def sept combat mu nekkoon ko xam dafa naqaree wutal adversaire nga ne nañ leen mako jox wa sant yalla rek li ma sama madar, sama mag mataar mbay ambulance entraîné ma wa Sine ñax wa dëkkandoo ñom ñep ñew nañ mais mais Kélé Dóor mais Kélé Dóor di sant waa Guinée Bissau sant waa Guinée Bissau fofu lañ bëgg quel est d'or sant wa Touba ngembulé xana xanaa si la joggé waaw ngembulé waaw waaw sant yàlla lamb ji dañoo gis nga changement baax. waaw ñu nekk ci dëkk bi nañ ma jox ñu ci dëkk bi ku ñëw baax na. bii di sa ku ñëw baax na bilaay wala damaa pare. waaw ah. Karaay xam nga baax a baax dinaa ñëw rajo ba.